tegu woon nañ ci yoon bu baax boo xoolee année soixante dix quatre vingt ba quatre vingt dix bu ñu waxante dëgg tegu woon nañ ci yoon bu baax te li ko mayee moo doon ne dañu jiitaloon xalaat jiital planifié maanaam boobu ville bu nekk état bi day ne na am plan directeur d'urbanisme nit ñi nu ñuy dëkkee liggéey fu ñuy liggéey place yi fan la bu ñuy dem bu ñuy ñëw marché yi fan la lenn la ñu amal ko place loolu soo ko defee dana la dimbale ci sa ni ngay li ñuy wax occupation sa sa territoire nga wut koo xam jiital ko ñaareel bi bi loolu xasee am ba pare dafa amoon benn cadre institutionnel benn tëralin mhm. boo xam ne amoon na mu di ne ministère urbanisme ak ay démembrement am ak i direction am dafa am àndoon ak HLM SICAP ñu dox ba créer banque de l'habitat boobu benn jamono élément financement moo manqué woon ba nga xam ne sax booy xool euh, banque mondiale moo mujj financé parcelle Assainies bi Sénégal xamee ne manqué na ko institution ndax financé habitat bokkul ak euh, financé kii jënd oto jënd mbubu de mhm. financement bu jafe la ndax foog nga am xaalis bu bari mën koo bàyyeeg nit ki fukket fukket ak juróom ñaar fukket ñaar fukket ak juróom prêt bi di dem banque commerciale mënul loolu mënewul noonu pour pour banque yi mëne loolu moo indi banque de l'habitat état da ko dimbale ba mu am xaalis yoo xam ne bu banque de leble leblee masalan fukk ci téeméer bu ne ñoom xaalis état wutal na leen ay fonds yoo xam ne zéro la coûté ba xam ne su boolee milliard bi ko coûté zéro ak milliard bi ko war a coûté dix day daal di tombé cinq pour cent kooku mën naa leble léegi six pour cent illustration rek la kon li manqué woon ci cadre institutionnel boobu di banque bi daal di tàbbi mais dooleel nag créer le métier et la l'accès et l'exercice de profession de promoteur immobilier amul woon privé amul woon ci contexte boobu lañ ko créé ba xam du ku jóg rek ne promoteur la ndax dafa am responsabilité bu ci àndal hmm. parce que mënoo jël xaalisu nit ñi wala terrain état wala wala wala wala ñu ne la ah waaja daw naa xaalis waa et cetera et cetera donc lenn lu nga xam ne day laal public bi état bu ne dafa am responsabilité réglementé ko donc ñu créer euh, disposition boobu promoteur privé yi mën a juddu mën a fonctionner ñu mën a tam mettre l'accent ci coopérative yi mais institution boo jëm am nay employé ñu disposition yi loi bi permettre ñoo ñu organiser woo en coopérative d'habitat mais xamante seen biir buñ seen employeur mën leen a dimbale ñoo ñu mën a cotiser ba nga xam ne suñuy defar seen bopp la ñuy defaral kooku tam doon benn contribution yooyu nag man ci sama seetlu bopp ci ñaar fukkaat yi ma xool gisatuma doxin woowu gisatuma ko ni mu daan doxee parce que jamono ba avant année 2000 yi da nga daan gis coopérative Asegna da nga koy dégg am logement Air Afrique am logement Air Sénégal am logement Assemblée nationale am logement armée Comico ci disposition boobu lañ ko créé en partenariat ak conseil banque l'habitat donc ñu dox ba gis ne terrain yooyu ñu affecté habitat kat waruñ tuñoo bàyyi ba programme jóg ñuy kërti kërti pour indi ndox mi indi courant bi indi nangam état xalaat ne kon naa créé benn société buy aménagé moo doon SCAT Urbam société boobu kon da ngay gis ne chaine bi da ngay daal di mën a am ci cadre institutionnel rek laay waxee donte de amoon nay manquement yoo xam ne ci biir waxtaan bi suñu duggee ci nu ñuy def ba coût yi wàcc dinañ ci waxtaan euh, au moins cadre institutionnel bi mi ngi fi at yi weesu nag man gisuma cadre institutionnel boobu li ma gën a gis mooy spéculation foncière li ma gën a gis mooy instrument yi nga xam ne comme HLM SICAP nga xam ne ñoo doon levier yi état bi doon appuyé wu pour mener sa politique ñooñu dañ leen dugal ci yeneen xeeti liggéeyin yu gën a cher yu gën a cher donc y a un problème maintenant da ngay créer accès noo nooy yombale nit ñi boo duggee ci terrain bi lu mu jar rek yu mel noonu rek ak lu may jaayee mooy marché bi di mu libéraliser daal parenthèse la muy loo xam ne dama bëgg ngeen noté ko amul kenn kenn ci àddina ku mën a régler problème mu habitat ci libéralisme amul mënul am foog nga jël ay disposition yoo xam ne da gis ne sama waa réew mi de bu ma jaayee kër gi lii lépp ci ñoom du ko mën a am nga ne ah, kon nu may def ba ñu mën ko am nga ne ah taux d'intérêt bi cher na nga seet noo koy wàccee nooy agiré ci moom ba mu wàcc ñuy la ah même taux bi bu wàccee te dure bi nag nga ne xaaral ma seet nu may def ba yokk durée boobu ay mécanisme la après nga dugg nag ci construction bi xool terrain bi su ma koy aménage chaque composante ba ci matériaux yeeg yooyu nga examiner ko donc lii daal ci tënk euh, pour man mm, mooy cadre institutionnel boobu dafa dafa dévoyé wu ci sama gis-gis ci ñaar yu mujj yi